mbokki jullit ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen teere di màggal guddi gi ak lu ko jiitu baaxoo ko ànd ak jàmbaar ci nga xam ne ci jàmbaare Serigne Mor Fassé yi la bokk muy Serigne Modou Bakhoum dëdd bu yàggul mu mel xol yëpp fees na tey jii ndax bi nga xamee ne dañoo taxaw wala ñu gis sëñ Abdou Lahad baaxum di dugg si mbooloo mi yépp tey seen xol fees ne dell lu ko waral mooy jataayu sëriñ bi lee daan la taxawee tey mu mel nii niñ ko waxee ci programme bi rek sëriñ Abibou Diop dina fi jël kàddu ak sëriñ Ousmane Gueye ak sëriñ Mbacke ak sëriñ Ibra Dieng ak sëriñ Mbacke baaxum ak sëriñ Xaarim baaxum ak sëriñ Abdou Lahad Bakhoum mooy ñaanal mbooloo mi sëriñ Habib Diom euh, mooy jël kàddu gi. bu ko defee mu wax ci turu sëriñ Siax baaxum euh, buñ ca noppee sëriñ Ousmane Gueye moo ci topp ñaan euh, lim daayira yi nga xam ne ñoom la ñu àndal bis bi. salaamaaleykum mbokki taalibe yi seen mbokkam taalibe bu ñuy wax Habib Diom yaakaar sëñ Mor Faasa baaxum moo leen di leen siyaareen di balaax. sëñ mu sëñ Mor Faasa baaxum moo may ba ci sëñ Mourou Baaxum. sëñ sëñ sëñ laatam sëñ Mor Faasa sëñ Mourou Bakhoum. damaa jox ndigal ci fajar ni ma da nga dem ba ca baas ba nga toog jot li mbooloo mi leen. sëñ laat mii mooy loxob càmmoñam mooy loxob ndijooram mooy kàddoom mooy doxam mooy tànkam. jotaay bii na ko se. mbaajam daan defe bu ñëwee mu jox ko kàddu jox na ko kàddu jox na ko mbooloo mi ñëpp mu ñaanal leen yiwi leen. ndool ndigal la ma jox. sëñ Mourou Baaxu mi fi jógee bari ci dem xam ngeen ko kenn ku nekk def taxawaayam tam naa ci seera ju leer kon tey bu ñëwee fii tey toog sëñ laat ñëw fi toog sëñ Cheikh yëkkati kàddu mu sëñ Mor Fassé teg loxoom ci kàddoom ak baatam ak léppam loolu war na noo soññiwaat war na noo xalaat fi ñu jëm lenn de su jële ñaar kàddu yi nag du bari du guddi loolu rek laa doon wax bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ko ne ci turam ak ci santam nuy àndandoo noonu taalibe yépp di jotal sunum nuyoo ak sunub siyaar ci sëriñ bi muy sëñ Abdul Ahad Baaxum mii ak rakkam yi mu fi teewal nuyoo boo xay am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem bu nu nuyoo ba pare nu boole ko akuk cant akuk ñaan ndax dafay lu nu war te ab taalibe lépp lu ko war lépp lu mu ca man war na koo jëf ba mu mat ndax li waral nu góor a góorgóorlu ci ñaan sëriñ Abdul Ahad mi am nañ ci moom yaakaar lool sëriñ bi fi nekkoon it daanu digal daanu tere itam tegtal nañ ko guddi tegtal nañ ko bëccëg moom ak rakkam yi nga xamante bi ñoom la bokk nekkal te sëriñ bi yàlla dogala na mu doon koo xay ke xàmmee woon na ker ci guddi lu mu la mas a wax lu mu la mas a wax ak lu mu man di doon lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg te lu yàgg sax lépp di nga ci teg sa bët loolu ñun ñëpp am nañ ci xam-xam kon sañu ab laat yàlla na la yàlla sàmm yàlla la yàlla dimbali yàlla yàlla taxawu ba nga yeggale te lepp looy def ak loolu sunu borom defal boole lako ak sa rak yi nga andal ak sa doomi yi yi ak kilifa yi fi nek ginaaw bu lolu jàllee nu ngi leen jottali ci ndigalu serigne Abdul Ahad mi ak ciantam ciant gi mu di ko tàmbalee ci mamam yi nga xamanteni bi ñoo fi def mu serigne Modou Fari mi ak serigne Abdul neena mi ngi len di sante di len ñaanal sunu borom gën fe yagal te dolli seen xiiwal di ci teg way juram yii nga xamante ne bii ñoo fi nekk bokk ak sëñ Mor Faasa la bokk nee na mi ngi sant rakkam yii mu bokkal sëñ Mour baaxum ak ñi bokk ak sëñ Mor Faasa baaxum te seenu njaboot ne fi waaye nag ci nin koy tënkee mooy li ko tàmbale ci daa daaira rijaalullaahi bii nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi di daaira sëñ Mour baaxum ak daaira hisbullah bi nga xamni mo nek ci dekk bi di daaira serigne Cheikh bahum ñom ñoy ndey daare yep fo leen tuddé tudd nga mbolem daaira bo xamanté du nek na ci réew mi ak bitim réew serigne abdoulat nee na jërë jëf ne bis bi jàng na nim ko bëggee won nee mi ngi leen ñaanal ci barkab Cheikh ngi Bakhoum seen bir jak ni ngeen ko bëggee te sétane bañ ci am yoon ginaaw loolu serigne bi gaa yi may ma tuuti nag ma dir si waat nag ci euh, daayira bii nga xamante ne bii ñooy waa Touba Mbacke yi nga xamante ni man ci laa bokk te sëriñ bi joxanu ndigalu liggéey daana jox ndigal dinu leen ko jottali loo bu ndigal li ñëwee buñ ko dugalee ci loxob sëñ Mor Faasa Mbay mii sëriñ bi ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee daayira Touba bii ñoom da su fekkente ni benn taxawaay lañ aman bi fi sëñ Muudu nekkee doole nañ ci juróom-ñeenti taxawaay muy fukki taxawaay fas nañu yéene xera ba sëñ Modou Bakhoum di wuutu sëñ Mor Faasa Bakhoum fa mu fekkan dëkk bi ak fa mu fekkan liggéeyub kër gi ak fi mu ko indi tey jii ñaan nañ yàlla ful ko ñaari yoon ba ñetti yoon ci sa liggéey bii nga xay moom nga ko jiitu yàlla na ko yàlla yàggal nee na yéen yow rek la ñuy diglu loo joxoñ dañ ko dagg lu mu mën di doon dañ ko dagg sëriñ bi nee nañu li nga leen di dimbali nag mooy nga ñaanal leen rek maa ngi lay jotoon nag cantu mboolem Touba seenu cant ci Mor Faasa Mbay mii nu sëñ Mourou Baaxum boole lan ndax li ma wax sàng ni sëñ Mourou dafa xàmmee ker ci guddi kera ban toogee ci garab gu mag gii néem gii muy sàkku ñu def benn fédération mooy xalaatal boppam woo sëñ Xaadim Baaxum mii ni ko naa ko bindal diw bindal diw ci dëkk sàngam bindal diw ci dëkk sàngam ba mu mat ñun tekk di diglu ba mu noppee mu ni daayiri yii nag damaa bëgg nag lépp mu jibal ko Mor Faasa Mbay mu nekk coordinateur bi nga xam ne ñoom ñëpp moo leen ko waafee booba noonu ñii moom boobalam nañ ñi fi nekk kenn amuloon xalaat boobu waaye fekk na booba li war a li mat a xam lépp moom xam na ko foo Mor Faasa Mbay jibal ko ko keroog ak tey jii lépp loo xam daayira laaj na ko lépp loo xamante ab taal bi war na koo jëf ci sëriñam Mor Faata digal na ko mbooloo mi mbooloo mi it ànd nañu déggal ko te xam ne lu mu leen wax sëriñ beneen ko wax ñu fas ne lépp lu mu leen wax ñu def ko kon noo lay lay jotal cantu Mor Faata te la sàkku ceew nga ñaanal ko te ñaanal na ñun ñëpp li jot jotali cantu jigéen ñi nga xamante ne ñoom lañ àndal ci njiital soxna Ndeye Tambadou ndax ñoom daayira bi ni ñu ko tàmbalee woon ci la ñuy wéy ba fi góor ñi jigéen ñi def nañ ci téeméer su góor ñi liggéeyee benn liggéey nañu fukk ñoom li ñuy joxe ñoo ci man li ñuy liggéey ñoo ci man kon jigéen ñi gàcce ngaalaamaa ñoom kon bàyyi leen xel te ñaanal leen te xam ne sa waa kër ñii gàccaay yi ñu dellu ñu sëriñ bi da daa wax naa sañ ma Jóob mii képp koo xamante ni bii soo ma gisee dégg ma teral wala nga wàcc lal jox ko nanga ma ko joxal sañ ma Jóob mii ndax fi mu xaw ma fu bàyyam tegan sëñ Mor Fassé waaye fi mu ma teg yaakaar naa moo ko raw nee na mi koy ñaanal te dinañ ko seeral te xam ne fu mu ku mu ci ni asalaamualeykum xamal ni man maa leen nuyu. kon gars yi gàmmo gi jag na nan la xasaayi waat nag te waajal bisub déwén bi. bisub déwén bi kat sunu borom mën na noo dimbali ba lu sëriñ bi sant ci bis bii bu déwénee lay gën a sant te mën nan ko te am nan ko te yéene nan ko nan ko def jërë ngeen jëf maa ngi leen ziar di leen